tey message yi du woon lenn pour dajale leader yi fi nekk ci zone nord pour ñu xam ne ñun ñëpp ànd nañu ndax ànd ci jàmm moo gën tasaaroo moo gën loo xam ànd boo xam ne bii doo am jàmm dangeen tasaaroo ndax dañu ne benn mat boo ko foree dina yomba damm waaye boo dajalee sa ay mat takk ko say yaakaar naa ne dangay jéem jéem bàyyi waaye doo ko mën a dem kon li fi jaaroon muy loo xam ne lii bañoon a dugg ci loo xam ne lii gëmuñ ci suñu bopp wóoluwuñ ci suñu bopp moo ñu taxoon a jàll ci leneen waaye man de dama bokk ci ñu ko rëccu parce que dama ne lii fi nekk nii ñu def erreur ba xale yi dugg ci yaakaar naa ne kon dañoo war a àndandoo nekk benn ndax ka ñu victoire bii jëm du 31 bii ñu jëm dëgmal ko pour le 31 juillet dañ ko war a daan à 80 pour cent dëkk bu amul ministre amul directeur général yaakaar naa ne boobu dëkk boo ko xoolee moo dëkk bu amul jàkkaayam xeexal ko du yomb waaw ndax dëkk bu amul jàkk moom dafa araamal sax dëkk te su ma yeboon ne suñu maat na faal gii dafa mel ni dëkk bu amul jàkk dañ ñëw desal gannaaw waaye nag ndokk yàlla bi nga xamante ne président Macky Sall dikk na xam valeur Medina Fall xam gëddëy zone nord président Idriss Seck xam gëddëy zone noor investir tax mu investir ma fi investir Cheikh Gaye ah yàlla bu seen yaakaar tas. ma yeboo ne combat bi Sénégal lépp Sénégal yëpp la Thiès yëpp la waaye nag surtout ñun Medina Fall commune nord suñu suñu combat bi suñu combat la te yàlla buñ ko des gannaaw. toujours damay yàgg di xul naan président lan moo ko tee employé renseignement généraux yi. parce que comme moom mënta génn xëj na dina génn waaye génnam tegu du tegu ci baas bi te ñi koy jëlal ci baas yi dem toog ca wetam naan ko base bi lee fexew base bi lee fexew bari na ci yoo xam ne yi njuumte rek lañ koy wax ma yaakaar ne bu fekkoon te dafay employé renseignement généraux yi ci baas bi yaakaar naa ni njuumte day wàññi dama naan sax euh, du président du Idrissa Seck mais li leen ko teg daanaka la ci ëpp seen bopp ndax su ma yeboon ne population bi fi nekk moo population tàmba région tàmba te fii mu nekk nii ku dikk da ngay sëq ci moom dem sa yoon boo dëkkee Dakar xooluñu ne dëkk Dakar kii mbokkum diw la wala sama xarit la wala sama wóolal rek la ñuy topp par parloo li leen ko teg daal ñàkk xam seen euh, gëdd par parloo daal la ñu gën a xam mais bu fekkoonte ne tey jii mënoon nañoo taxawal seen bopp kon ba nëgë ne Médina Fall changé na waxatuñ ko. surtout ndax toog naa damay togg añ wala damay togg li wala damay fóot ma bàcc li ba. midi jot ngay doora dem yaakar na ne bo demé yaakar na di nga dem ranga ranga rang ba parce que bo xolé sax école yi ngone gi lay gëna fess fees daanaka bu ñu ba ay 2 h 3 h do gis kenn digënté bi suba gi ba midi do gis kenn wala ña fay nekk duñu bari mais toujours ci fi suñu centre yi 5 h lañu ñuy gën di génn 4 h à part de 4 h 5 h lañu ñuy gën di génn naan damay xaar kër gi sédd naaj bi dafa tang te loolu bu ñu ko defee rek suñu atu dinañu rëcc may ñaan ñaan yàlla di leen tàllal loxo daal kenn ku ci nekk na nga farlu ci bu fajaree boo sëlmalee fajar da nga dugg fanaanal ku sëlmalee fajar na nga dem ca ran ba